ñiy woowee maladie non transmissible bokk na ci accident vasculaire cérébraux cancer diabète ak affection respiratoire chronique fii ci réewum Sénégal nag daanaka téeméer boo ci jël rek ñeent fukk ak juróom ya ci décès yi ñoo koy indi mu doon nag taux woo xam ne romb na moyenne région ouest africaine bi nga xam ne mën nga ca 37 pour cent. feebar yu nga xam ni dañ leen war a bàyyi xel parce que Sénégal boo jëlee tey jii téeméeri nit ñuy faatu mun naa ne genn wàll Euh, feebar yooyu ñoom ñoo ko waral. Sénégal nag def na ci ay jéego waaye nag war na yokk taxawaayam ngir xeex jàngoro yile moo tax tey gouvernement ba dafa bëgg jaarale xeex bi ci prévention waaye itam boole ñépp ci xeex bi. xam nañu tey ji feebar la yu nga xam ni du rek ministère de la santé moo ko war a toppatoo mais dañu war a lëkkaloo ak yeneen ministères yi ñu gën ci ràññee ministère de l'éducation ministère de l'agriculture de l'économie euh, bref secteur yépp ñoo ci war a jàpp. ñu xàccandoo dóorandoo vraiment pour feebar yooyu en tout cas mën a wàññeeku bu jàngoro yi ñuy woowee maladie non transmissible nekk na ay feebar yoo xam ne itam paj ko xaalis bu bëri la laaj boole ci itam mën na la jural yeneen gàllankoor bu ci mel ni way waylaago waaye itam. AVC ak yeneen téeméer boo ci jël nag ci décès yi ñeenti fukk ak juróom ya jàngoro yi lée ñoo ci responsable fii ci réewum Sénégal mu doon ab taux woo xam ne romb na lool taux concurrent bu Sénégal ci région ouest africaine di Côte d'Ivoire mi nga xam ne taux am mu ngi toll 31 pour